221, une autre vision de la télé. Euh, di rafetlu itam taxawaayu conférence des leaders taxawaayu ndaw ñi taxawaayu <coughs> jigéen ñi di wax ni sama kàddu du ci bare parce que jàpp naa ni euh, bu ci kanamee leaders yi dinañu wax ci luubal bi nga xamante ne moom moo yéem parce que foog naa ni ku doon wax naan reddition des comptes moom nga tàmbalee sa nguur wax ne da ngay taxawal ay CREI pour di topp nit ay alal euh, jàpp ay nit tëj leen ci ay caisse d'avance euh, taqal gor bu ne ci réew mi kenn ku nekk nga am loo ko jiiñ boo demee ba corps de contrôle yi génnee rapport bu toll nii war ngaa am kersay wër plateau yi di ko layal waroon ngaan mën a rek teg li nga xamante ne moom mooy sa wareef mooy nga pour euh, poursuivre ñi nga xam ni tey ñoom la seen loxo taqee te ñooñu sax danoo feeñ la rek waaye ñi làkkoo gën a bare parce que foog naa ni ku ñu jox plus de cinquante mille milliards réew mi toll fii ngay lam laamee liggéey nga wala liggéeyoo foofu la sàcc commencé parce que ah, alal ji ñu jox président Macky Sall mësuñu koo jox benn président bu toog fii ci Sénégal léeg-léeg nag dañuy tàmm ñoom di taxaw di bàkkoo ne liñ def ci budget mais liñ leen jox ci alal itam Sénégal waroon naa mën a weesu fii loolu ñëpp dinañ ci jaar jaaraat ci man nag benn mbir rek moom lay ci lay taxaw leeral parce que dañu wax ne dañoo woote concert de casserole euh, bis boo xamante ne muy bisu 31 décembre bisu 31 décembre ñëpp xam nañu démb ak barki démb ba muy ba muy 31 décembre Sénégal yi kenn ku ne sa xol da doon nekk ci bëggal sa njaboot sa xol da doon nekk ci fetu sa xol da doon nekk ci waajal ak mu bees mais mille 2023 de gëm naa ni Sénégal yi kenn ci ñoom waajalu ko ci mbégte parce que ñëpp ñu ngi ci njaaxle jaaxle bi mooy naka lañ ciy duggee parce que ki fi ne war a dem ba tey mu ngi naan ni wii nii non di yónnee ay nit ñi di ko waxal sénégalais yëpp ak adduna bi yëpp ñu ngi taxaw di retenir seen souffle ci 2023 nan lañ ciy duggee kon ñooñu talu ñoo fetu waxuma nag ak jafe-jafe adduna bi kenn ta amatul loo jëndee xaar wala amatoo loo jëndee gâteau wala amatoo loo fete euh, boole ci nag Euh, li nga xamantene mom moom tax tax jeunes yi parce que concert de casserole bi ñu bëda japp nañu yeewu askan bi dafa yeewu rek ne kaalim teggi bol dedet ñu dañu am plan d'action dinañ ko wax légui euh, tek ay programme mais sénégalais yi ñoom ñoo déglootul président Macky Sall sénégalais yi ñoom ñoo fer ci ay fen sénégalais yi ñoo japp ni gannaaw nopp amul kubéer nañ jël kubéeru ci ni tëggee ko buy wax nañ na rong-rong parce que déggatuñu ko parce que en réalité munoo toog pendant 11 ans nit ki di wax loo xam ne doo ci def dara munoo toog pendant onze ans chaque trente ans décembre ñu defal la discours boo xamante ne nit ñi dañuy taxaw di wax li mu wax lan la nit ñi dem nañ ba suivretuñu discours boobu kon nag sénégalais ci seen jëmu bopp ñoom ñoo jàpp ne amatuñu lu ñuy xaar ci moom lenn de la ñuy xaar ci président Macky Sall te loolu ay kàddu jaru ko mooy mu def ni au revoir au mën ngaa noppi di ko wax bu yëkkatee loxoom def ñu nii sénégalais yëpp dinañ tàcc kon soxlawuñu nopp

tëggi casserole sant suñu boroom tëggi casserole lépp loo xamante ne rek jàmbur bi mu koy def mën na ko boole ak tëggi casserole parce que nag tëggi casserole bi xam nga lu muy wax référendum populaire la pour wane président Macky Sall ñun fer nañu sa ay fen wane président Macky Sall ñun pare na ñu tàggatoo ak yow wane président Macky Sall naxee mbaay jeex na ne la wattuñu danoo yeew wan leen itam ni suñu cin yi amuñu luñ ci def amuñu ganaaru ñu togg amuñu amuñu amuñu yàpp ñu togg amuñu ñu lu ñu fete kon nag dinañu tëgg ba adduna bi yëpp déggul dinañ tëgg tam ba nit ñi xam ne bëgg nañu jàmm ba nit ñu xam ne sénégalais yi adduna bi yëpp xam ne Sénégal kat mu ngi lancé message président Macky Sall ne ko pare nga jeexal nga bul tànqal nit ñi bul yee fitna bul yëngal réew mi bu fekkente ne loolu nag foog naa ni ay tamaki casserole la képp koo xamante ne xañ nañ la sa baal xañ la sa ginaar xañ na sa miche xañ na sa leneen ak leneen dañu ne na nga tëgg ndax loolo gëna nak sedd ci yaram na nga yëngal sa ay bool yëngal sa ay bubuzela lépp lu way mëna def pour def bruit ba aduna bi xamni peuple sénégalais kat mu ngi araftu mu ngi araftu bo ba légui ñu ngi araftu ñu ngi naan ñu ngi tecc suñu ay doom di tecc suñu ay papa di ray suñu ay frère waaye kenn yëngatu légui nak dañu bëgg mbir mi dakk comme président Macky Sall nee naay mom moom dafa am majorité ba tay muy wër di def ay tournée ba tay mu ne day jaay ay carte

221, une autre vision de la télé.